gars yi kaa bii kaa bii du la kaa ma ñaawlu la trop ñaawlu naa ko daal ba ci kanamu yàlla jëmm jii di Carter di xaritu aadamoo bi li mu def dafa ñaaw dafa salte kaa bii la Gambien yëpp di waxtaane jamono jii yëpp léegi mu def une semaine xale bu jigéen baa ngay waaj a xaru awa seex la tudd bi Viviane ñëwee fële ca Allemagne suite gaat xaw ma waaw suite gaat Adamo dafa jël otel ca Suite Gap fay fa 400 euros ca hôtel ba hôtel ba am ñaari néeg ñu invité ñaari jigéen benn jigéen bi mooy Awa ki ci topp mooy Mbayang Awa ànd ak ki nga xamante ni mooy Carter ñoom ñaar ñëpp ay Gambien lañu beneen xale bu jigéen bi moom mooy ànd ak aadamoo ñu jël ñaari chambre ki nga xamante ni mooy gambien bii li mu def bu ngeen ko yëgee bu ngeen ko gisee da ngeen ne rey ndeyam daa toroxal jigéen dafa tëddee awa seex ba noppi filmer ko di ko tëddee di ko filmer ba pare partager ko gambien yëpp jot ci xale bu jigéen bi di jooy guddi di jooy bëccëg moom awa seex léegi beneen xale jigéen bi ci topp mbayang xam naa ko sax sama xarit la moom yàgg naa koo xam waaye bett na ma trop ndax jëmma jii di aadamoo ku mu xaritool waroon ngaa xam ni kii du xaritoog ku baax ndax jëmma jii di cartel moo gën a bon gën a nekk doomu xat ca Gàmbi nekk fii ci Europe di toroxal jigéen yi di leen filmer seen lëf yi di ko partagé looloo tax mu xaritoo ak aadamoo mi gën a bon ci Sénégal gën a toj cottu ndeyam moom it yéen ñaar yéen a yem te li ngeen ko defee dafa ñaaw xale bu jigéen bi mooy wax nee na quartier da koo tëddee waaye yëgul woon ni sax quartier tëddee na ko yow quartier doomu xaraamu caga bu bon nga yow mën ngaa katt sax ah néew mën nga ko katt yow ndax di kat jigéen te ki ngay tëddee moom xamul ni yaa ngi koy tëddee ndax dangaa jël ay ay ay dorog jox ko ko ci sàngara bi parce que Adamo moo ko wax ci laay fa ma dégg mu ni sàngara si ah sàngara si Mbengue moo ko wax mu indi ko sàngara xaw ma aw a seex ñoom ñaari jigéen ñi daal ñoo ko laaj sàngara gàmmee yëpp di ko kaa waaye tëddee ko ba noppi di partager vidéo jàmbur yow yow ku bon nga doo